juste waaw xam nga comme ni ko doyen waxee rek. d'abord damay revenir un peu sur le dialogue parce que je me suis dit que le mu dialogue est devenu galvaudé dans ce pays. on a tellement joué avec le concept dialogue que maintenant personne n'y croit kenn joxatu ko importance. bi mu am en réalité. parce que on a eu à organiser des dialogues yoo xam ne amul sens. dëkk bi toll woon situation bu waroon mën a tax ñu dialoguer parce que am nañ constitution am nañu ay loi am nañu ay règlement dañuy jékki-jékki rek contexte am ñu créer dialogue comme nu ko gars di waxee dem ñoo xamante ne ce ne sont pas véritables acteurs de la vie politique de ce pays ñooy dem participer léegi aujourd'hui on en a besoin kenn répondre leen parce que en réalité dialogue bi dañ ko foowee mais doyen dafa wax lu am solo élection yi mënatul am le vingt cinq léegi maintenant qu'est-ce qui va se passer soit dialogue dafay am te man li ma tuddee jalog bi mooy dem jël une décision à la place de à la place des acteurs yi nga xam ne ñoo ko yàgg di jël c'est-à-dire soit on laisse Macky Sall avec Assemblée nationale ñu jëlaat beneen décision dëkk bi tàkkaat wala ñu dem jël une décision pour la suite ñu waxtaan ñu waxtaan pour la suite moo tax man pour une première fois ma d'accord ci dialogue bi non pas pour se renier mais je pense que boo amee boo ànd ay acteurs politique pendant des pendant du du dialogue bi mooy tax nga ne non diw trahir nañu. par exemple Ousmane Sonko trahir nañu mais Ousmane Sonko bu participer wul ci dialogue bi mais c'est-à-dire que les destinées de ce pays vont sa décider sans lui te jamono yu ñu toll on est tous d'accord que mais rien ne peut plus se faire. ne peut se faire sans sans sans le Askan Wi de manière générale sans l'opposition donc soit ñoom dañuy décider dem dialoguer dialogue entre guillemets dem prendre la décision bi nga xam ne mooy arranger askan bi wala soit ñu toog barricade wu parce que à partir du deux Macky Sall dootul nekk président. Mm-hmm. conseil constitutionnel bu déclaré woo incompétent pour pour prononcer wu ci loi bi cour suprême débouter les les les les candidats. mais dans ce cas le président va prendre une décision léegi soit est-ce que dañ koy bàyyi mu jël décision dëkk bi tàkkaat walla est-ce que acteurs politiques yi dañu war a dem jël ànd ak moom jël la décision la plus importante pour ce peuple donc moo tax dialogue bi quand même il faut nit ñi xaw ci dem ak tuuti conscience dem ci ak tuuti xel parce que kan moo nekk dans une mauvaise posture parce que dialogue yi passé on considérait que am na ay acteurs yoo xam ne foog ñu xëcc leen ñu ñëw bokk ñoom ñoo ngi dans une mauvaise posture mais présentement mais c'est le régime qui est en mauvaise posture donc dialogue bi kenn waru ci dem profil ba kenn waru ci dem les acteurs de l'opposition mais dañ ci war a dem la tête haute la tête haute parce que ils sont en bonne posture parce que constance bi nga xamante ne moo amoon depuis pratiquement durant tout ce tout ce mandat de ce dernier mandat de Macky mais constance boobu moo am dans l'opposition donc pour un simple acte d'aller répondre au dialogue ñu bëgg a gëm ne mais dañ leen di dañ leen di weddi en tout cas ñun à niveau gëm nañ ne lii taxul ñun ñu weddi Ousmane Sonko taxul ñu weddi Déthié Fall taxul ñu weddi bépp membre opposition radicale mm. parce que en réalité on on leur demande d'aller décider pour nous sinon ce sera les Kouramaki ngeen baal ma <laughs> mais mais c'est ça ñoom ñooy demaat décider waat dë non ñoom ñooy demaat décidé waat dëkk bi tàkkaat donc loolu il faut vraiment Maria ñu taxaw ci réfléchir et que ñu et que daal mooy ñu toog bañ a dem ba président Macky Sall mais mais ce sera catastrophique encore dañuy wàccaat xeexaat léegi nag bu ñu xeexaatee quelle sera la suite Macky Sall soit alpha dafay dem léegi président assemblée nationale à partir du 2 est-ce que mooy ñëw am na ñu koy insinuer parce que déjà loi bi ñu voté am na benn article bu ñu ci dugal que ne président mooy assu mooy continuer son mandat jusqu'à jusqu'à la passation am na ñu ne nañ ko dindi président assemblée ñëw mais bu président assemblée ñëwul Macky Sall démissionné par hasard qu'est-ce va se passer donc opposition bi on leur demande d'aller décider pour nous mais pas d'aller dealer wala pas d'aller dem jaloge non man gérer ma lii yow man ma gérer la lii Macky Sall non